asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi asalaamaaleykum yéen ñi tàmm Sénégal TV dal leen ak ci seen revue de presse sur lundi 7 janvier li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci li le populaire daal di fësal ci xëtam bu njëkk muy affaire Ahmed affaire Aydara Sila Aydara Sila moom populaire daal di nay xamle ni tey kat la bisum dëgg tey lay leer ndax tey jii la Aydara Sila di jàkkaarloo ki nga xam ni mooy procureur looloo tax l'observateur daal di ñuy wax ni Aydara Sila kat mi nga xam ni moo nekkoon jaaykatu mburu bi nga xam ni dañ ko fekk ak benn segu 2 milliards 500 ci suñu français fa seg boobu nag Abdoulaye Wade moo ko ko bindal looloo tax l'observateur daal di ñuy xamal lan moo waral loolu tax euh, l'observateur daal di ñuy xamal les relations yi nga xam ni ni Aïdara la ak maître Abdoulaye Wade looloo tax le quotidien daal di ñuy plongé dugal ñu ci biir caravane Ali Baba waaye nag du bi ñu yàgg di dégg ndaxte kan dafa Ali Baba Wade maanaam maître Abdoulaye wàdd ndaxte bi nga xamee ni déglu nañ ki nga xam ni mooy ay Aïdara Sylla ba pare daal di nañ ci am révélation yu doy waar ndaxte moom kat daal di nañuy xamal ni euh, Abdoulaye wàdd dafa ibbi ay compte yu bëri ibbi na benn Dubaï ibbi na benn Jidda ibbi na benn fa nga xam ni mooy Paris ak set et cetera xamal nañu tamit am na ñaari opération yu 3 milliards suñu koppar yu nduroo waaye tamit ba tey xamal nañu tamit ki nga xam ni mooy xalifa wu Ndiassane ak Basir Kunta ñoom it daan nañu jot ci see segu wàddu yooyu looloo tax enquêteurs yi daal di ciy conclure tënk ci ni loolu kat du dara lu dul ab blanchissement d'argent maanaam njuuj njaaj weexal xaalis bu lëndëm looloo tax ma jambal daal di wax ci les lundi di ma jambal ci le quotidien moom nag xam na ni tey jii suñu justice tey jii suñu euh, ñi nga xam ni ñoo le justice ci suñu réew kat am nañ défi bu ñu ni ko lan la mu ndaxte nag dañuy dugal nous rek wala ñu libérer ndaxte dañuy contre porter plainte contre X porter plainte contre ki nga xam ni ak X moo ne danee nañ X boobu maanaam alaxam xam nañ ko ndaxte la mu njëkk wax mooy 2 milliards ak 500 millions yooyu nga xam ne nii la seg du kenn ku dul Abdoulaye Wade donc bu dee Abdoulaye Wade moo bind l'olé est-ce que jar avons encore porter plainte contre X moo ne de ki nga xam ni mooy Macky Sall daal di woon nañ wax ni du toppee dara ki nga xam ni mooy Abdoulaye Wade du ñu toppee dara Abdoulaye Wade nekkoon fi président de la République pendant le temps wu sénégalais yi ñu ngi waajal maanaam gouvernement bi mu ngi waajal juger ki nga xamante ni ni mooy Hissène Habré Hissène Habré tamit nekkoon président de la République u Tchad looloo tax l'observateur daan ni bu dee waa Wade xam nañ mooy kande Aydara ki nga xam ne mooy Aydara Sylla ñu bëri umpale nañ ko looloo tax mu daal di defal ko benn gëstu bu rëy l'observateur di ñu xamal kooku di Alioune Aydara Sylla mu ngi juddu ci atum 1956 fële ca ñaxal kër Libaas ci département wu Tivaouane ñu desandi ci l'observateur moom mu ngi seq waxtaan ak nga xamante ni nii mooy Cheikh Ndiaye Teranga Cheikh Ndiaye Teranga di président de l'union des groupements de transporteurs des transporteurs et chauffeurs propriétaires de véhicules du Sénégal moom nag mu ngi xamal ni li nga xam ne ni mooy ñenn ci chauffeurs yi seen xel dafa deexul dara looloo taxoon permis yi ñu leen joxoon dañ ko war a nangu ba tey ñu desandi ñu desandi ci laas laas moom mu ngi demoon ci cérémonie officielle u ziaraayu Thierno Seydou Nourou mu ngi xamal ni kat famille Omariane moom ñu ngi woote pour Sénégal bu dal bu am jàmm ak féex looloo tax tamit ñu xam le ni li nga xam ni mooy homosexualité ak moo maanaam mbiru góor jigéen wala ay góor góor wala jigéen ak jigéen nekk lu ñu mën a toloore fii ci Sénégal ndax l'islam daal di ko nangu ñu demandi ci stade stade mu ngi ñuy xamal kat Demba Ba feesoon show ndax tey kat moom première match bi nga xam ne nii def na ko fële ca Chelsea daal di nay def benn doublé las bi ko feelu daal di wax kat Demba Ba moom ñëwinam daf koy feete looloo tax tamit stade egg ak ñun ci euh, mondial 2014 bi daal dinañu xamle Sénégal Angola dinañu laale ci mars bi waaye fële ca Banjul lañ koy daal di defee bu ñu desendee stade ci lutte kat ñu ngi ñuy xamal ni ceeg moom mu ngi avertir ki nga xam ne mooy Abdou Diouf ndaxte nee na ko duma la may dara du yomb dañ koy def defante ba mu sa sàpp ñaar ñi war a defante kay te xamaguñu ku leen di boole muy Modou Lo ak Eumeu Sène moom nag promoteur yi ko bëgg dafa bari ndaxte bu weesoo Gaston Mbengue ak Aziz Ndiaye ki nga ñi nga xam ni ñooy waa WWR dugg nañ ci làng gi ndax ñoom it bëgg nañu def loolu nga xam ni mooy combat boobu looloo taxit ñenn ñi dem ba yaakaar ni sax balaa ñuy génn ci saison bi incha allah ñoom ñaar dinañ laale su suñu woyandee ci fait divers ki nga xam ne nii mooy le vieux Modou Diagne moom nag dafa am lu ko dal li olof Ndiaye naan ku doon sàcc di naan boo màndee feeñ mooy li ko dal ndaxte dafa doon tëddee ki nga xam te ni nii mooy sëtam bu toll ci fukki at ak juróom di ko tëddal ba xale bi daal di wan lor ñu laaj ko mu ni seytaane rek moo ko jàppoon fële ca Tambacounda ka nga xamante ni nii mooy Euh, comptable des matières au mairie de la ville ba kat la ñu ndax nenañ mom mo moo jël plus de 5 millions fële ca Kolda mom panique mo fa am ndax té ben camion citerne camion citerne bu amone 35 34 litres euh, bu amone 34 quatre li trente quatre litres gasoil mo tuuru ci mbedd ma tuuru ca tali ba ñëpp daal di jaxlé mbokk internet yi mbokk Sénégal TV tey fii la ñuy yem ak yéen ci seen revue de presse su lundi euh, di leen jox dig daje ci bis yi di ñëw jërëjëf.